ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا ومنزل الشفاء والدواء

waaye di sant rek sant sant yi ñaan yooyu yëpp gis nañ ko de li li li li ñaan ngay ngeen dolli rek waaye toor kàlla toor kàlla dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la moo taxee day toor kàlla alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax li ñaan moom balaa màggal rek kenn du wax noonu rek lan <laughs> laa dama ko moom. waaw waaw dëgg la wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi ñoom ñi nag daaw xam nga ñoom ñaan ba ak professeur Lamine Gueye ñu doon saytu comité d'organisation bi lépp lu jëm ci wàllu kër docteur bi ngir jàngoro ji ak yu mel noonu xam nga ñëwoon nañ ci ñu ñaanal leen suñu doon suñu doon mën nañ ci ndam loolu nag lépp di ci sa barke dañ na ñu ne mën nañoo tàmbaliwaat dara faw gi dikk ba ci yow. Mhm. yeesalaat ndigal li. Mhm. su ko defee nag soo ko dem tàmbali liggéey. ñoom ñii ñëpp nag sëñ bi ñoo ngi liggéey ci li ñuy jàppale comité d'organisation bi. ñoom ci wàllu wàllu docteur la ci loolu kan nag. léegi nag. waaw bi waxtu bi <laughs> moo tax lépp lu ñu defoon daaw te nga ñaanaloon ñu. te sa barke yi taxoon yi ñu am ci ndam. Mhm. loolu dañ ko bëgg a reconduire mu gën a yokk sax. loolu amoon lépp te biir lii xew yëpp liggéey nañ ci bu baax ci ndigal yi di gouvernement bi di wax ak yi docteur di wax ak soreele beeg masque yeeg gel yeeg ren nag lii lii ñi ci yokk yi gëstu nañ ko te buñ sañoon ni waxtaan ceeg askan bi muy mbiru vaccination yi ah. loolu moom ñi ñëpp seen xel dafa màcc ci loolu waaw léegi nag ñu doon jël ci ndigal surtout jël si ñaan daaw ñaanaloon nga ñu ñu am ci ndam ci li ñu liggéey ceeg Serigne Cheikh Abdou mi ak comité d'organisation bi ñuy sàkk si waat ñaan ak ndigal ñaan ndigal xam nga loolu dañ koy wér rek. waaw dañ ñu ñaan ci barke sëñ bi. moom delloo nañ ko. dëgg la moom xam nga si liggéey suñu bopp. dëgg la ñaar rek yàlla mën na ko. waaw ñu ne sëñ bi ñaan ci barke yàlla yàlla yàlla rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla. doyloo sëriñ bi. ñaan ci barke. ñaan ci barke. jërëjëf yàlla doyloo sëriñ ñaan ci barke. yéen ñu egg si léegi. kon mooy taxawaay bi rek ñu ngi tànn taxawaay bi baax a baax. jërëjëf

seen ci liggéey bi ñu am chance parce que unité bi moom léegi mook euh, comité d'organisation bi ci biir la nekk yàlla def nag ñu am xeewoo la ñu dénk ñu lii ñuy wax alerte ak prévention loolu moom fu ay millions di nit di tase yaakaar naa am na solo lool ñoo xam ne yàlla may na leen ci xam-xam yu tuuti ba pare surtout ñu nekk ay taalibe engagé wu li euh, décidé liggéeyal suñ tuubaa ci màggalam bi ci màggalam gi ak ci communauté bi léegi nag lépp li ñu defoon daaw yéen ñu ñaanaloon sëñ bi jox ñu ci ndigal ñaanal ñu yàlla defoon amoon nañ ci dam ñu yéenewaat euh, loolu ñu ci defoon daaw li ñuy def ren ëpp ko taxawaay buñ ci amoon daal ñoom ñi ñëpp taxawaat nañ ci partenaires yi ñu nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ndool daaw ñoom ñëpp joxaat nañ ñu seen engagement ne dañoo bëgg a taxaw ci liggéey bi léegi nag euh, dafa taseeg ren encore lii xew te daaw xewoon na waaye e, ngir e, suñu borom ak ñaanu sëriñ bi gis nañ ne màggal gi amu ci woon benn impact wala benn njeexit loolu nag am nañ ci yaakaar moo tax ñu seeti woon sëñ bi pour mu ñaanal ñu ci joxaat ñu ci digal ci lii xew nag daaw yaakaar naa stratégie bi amoon na ci solo comité d'organisation bi ñu jàppalewoon bu baax a baax ñuy sàpp yëpp ci yow ñuy président bi comité bi jàppalewaat bi xam nañ ni sax loolu moom daanaka am na ba pare ñu liggéeyoon ci liggéey bu rafet ak yoon ñu ko jiite liggéey ko ak sëñ Cheikh Abdou sëñ Ousmane bi jàppale woon nañu euh, ci loolu lépp luy ndigal lu gouvernement bi joxe dañ cee bëgg a jàpp liggéey koog nag waa ministère de la santé ndax ñoom ñoo yore loolu ñun dañoo nekk ci biir communauté mouride bi jot ci ndigal waslu ci àq moo ñu war liggéeyal ci bi ci loolu nag ndigal yi li ci ëpp moo solo mooy loolu ñuy wax mesure barrière muy masque yi di gel yi yokk ci li ñuy wax distansation sociale yàlla def na ne li muy doon yëpp ay millions nit distanciation sociale mën naa am stratégie biñ tëraloon daaw indi na ko parce que fexe woon nañ ba fépp fu ñuy ziyaare nit ñi jël seen i mesure waaye it bañ a tàncaloo te loolu distanciation sociale la ñu de euh, àdduna di dox ba ren leneen dugg ci beneen moyen prévention muy lii ñuy wax ñàkk yi loolu nag ci suñu euh, kuréel gi am na ci ñoo xam ne it ci loolu la leen yàlla may ñu gëstu ko ce qui fait que loolu yit bëgg nañ cee liggéey wax ceeg askan wi noo xam ne yaakaar nañ noonu lañ ci mën a waxee ñoom ndax euh, seetlu nañ ne ci mesure prévention yi gën a am solo la bokk waaw loolu it ñu sàkku nañ ci ndigal sëñ bi sàkku ci ñaan di ci ñaan it njàppale ba ñu mën cee wax ndax lépp a rek mu ni ñu wax ne liy gën lee mesure barrière ci la ñàkku yeeg vaccination bi ci la lépp daal ci la ñu fas yéene ci liggéey nag bind nañ plan d'action bi nag ba mu taxaw xam naa dinañ ñëw partager ko ak comité d'organisation bi parce que loolu mooy waaw altine sax la <laughs> waaw sëñ Abou woon na ma comme ça ñoom itam ñu xam li ñu nar a def euh, xelal ñu ci ñu soog a commencé nag def ay jéego dañ ne woon nag balaa ñuy def benn jéego ñëw yaar sëñ bi seet si la am ak sëñ Cheikh Abdou loolu mooy suñu tànk tey ñu ngi sàkku ñaan daal waaw kay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di delloo am bu baax a baax di di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ci li weesu ak solo nag ni ko sëñ Abdoul Ahad Mbacké waxee léegi mooy laata ngeen di def dara dem ngeen ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fii Serigne Touba te di boroom ndigal li te lépp ni ci loxo ma mm-hmm. doon laaj ci moom ndigal ba jox leen ci ndigal yi xalaat kon ni leen ko joxewoon daaw ngoor bi di ko ñaar ci soññe ci te kàddu yi sëriñ bi wax léegi ne moom la wax doñu sëkk mooy yaakaar yàlla te doyloo Sëriñ Tuubaa mm-hmm. te a sàmmante nag li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen la suñu borom dénk loolu ñi ngeen jàpp ni la war a demee ngir nit ñi mën ci mucc mm-hmm. loolu moom wane na ci misaal ndax ku ne xam ne Cheikh Mamadou Mountakha fi mu toll ci diggam ak borom ne xam na fi àgg ci wëkkilu ci loo xam ne ñun ko xam démb xam ko tey xam nañ ko xam nañ moom dundub dara lu weesu li suñ doon santaane ci moom waaye ku nangu dogalu yàlla ba tax sabab sax euh, lu ci ne foo ko yàlla yemale fale ci la ba ci li mu woote woon bu yëg-yëg bi mu ci amoon ak la mu ci wax waaye dégg kàddu yi mu wax bi mu ko waxee di ñëw ginnaaw suba ñaan gi ñu def dañ koy def tooxlu dellu ci yàlla tuub ngir yaakaar yàlla waaye nag delluñ ko dara ndax suñ borom moom moo yor kattan gi moo yor coobareem buñ ko xasee ba ñaan rek li jëf dañ koy bàyyi ci coobareem bu fekkee may na ñu sant bu fekkee mayewutit ñu xam ne loolu mooy li gën ci ñoom ma ko loolu da mooy baytu Sëriñ Tuubaa bi wax ne yaa rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta farida wa sabr kon mu dëppoo baytu kon moom lépp foofu la ko teg kon nag def na sëkk misaal ci képp koo xam ne yaakaar nga képp koo xam ne ab jullit nga képp koo xam ne ku dëkk ci réew mi ngay xool nga xam fi mu toll ni mu doyloo yàlla ni mu gëmee Sëñ Tuubaa ni mu doyloo borom ba noppoo dootul masque yëpp mu di ko jëfandikoo ngir wane ci am yoon loolu rek bëgg dimbali nit ñi loolu tax mu di ko def boo delee ci wax Sëñ bi jaxate dafa am ñaari aaya wa yatajannabuha al-atqa allati ak wa sayujannabuha al-atqa allati loolu mooy li sëriñ bi jaxat di wax nan kuy daw kii daw lu bon ak ci lu bon di daw mooy ñaar yooyu wasay jën wasay jënd baax ba yete jënd baax mooy loolu kii daw lu bon mu ngeen jib murid la bu yëggagul waaye nag ki nga xam ne daw na borom moom neen lu borom koy daw daa cee teg ne dégg nag wax ji wax tax nañ danaan yónneen da daa musloo ko daw laajal lu xew loolu mu da muslu ko dafa daa xamal xeetam bi mm-hmm. waaye juddóor ji fu mu war di mm-hmm. kon sëriñ bi bu ngeen gisee lii mu di ko def mm-hmm. mooy day wone ni ñi fii war a jaar te moom loolu responsabilité ma ndax ku fi mas a nekk Sëriñ Tuubaa ku ne Cheikh Abdoul Ahad am na kàddu yu ma si yëkkati jëme ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye ñoom doon waxal ci biir wax nañ ne responsabilité bi diggam Sëriñ Tuubaa mhm. ci la ko Sëriñ Tuubaa woon kon képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa lépp loo diggal nit loolu laay diggal ci ñoom mhm. loolu te topp ndigal li ci lañ njëriñ di ne mhm. kon nag loolu nit ñëpp gën a góorgóorluwaat ngir xam ne ne bu ko sëñ bi defutoon te santaane ko it ñëpp war koo def ngir topp ko ndigalam rawatina rek mu di ko def ba noppi jiitu ca di ko tegtale te jublu ci daal lu may bëgg mi sàmm te ku baax ci Cheikhul Euh, ak Cheikh Ibrahima Fall daanaka wax nee na sëñ Tuubaa ni mu ñu yare lépp lu ñu digale moo ñu ci jiitu bu dee jaamu yàlla moo ñu daq jaamu yàlla moo tax fu mu ko mosaan wàcce ci liggéey bi mu koy liggéey mu ne ko yaa ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam te nga wàcc ba liggéey kon ñu tam foofa lañu ne lii nga xam ne mooy li fi xew nag di mbas mi coobare suñ borom ñetti naa ko ba tàyyi mm-hmm. ndax ci njaarim la ci sëriñ Tuubaa waxoon lu mu tubaab bi ànd sëñ bi àll coor ba mu dikkee mm-hmm. eh, di ko leeral ci situation yi toll fekk sëñ boo xam ne lépp mm-hmm. sëñ bi ne leen lu fi suñu borom wàcce waxtu bu fa jeexalee dana jeex ba mu jaaxle ba jaaxlaa ñu ne xam ne sëñ bi dafa déggul fi àdduna toll moo tax bi Cheikh Mawud a wootee am ñu bari di jaaxle mm-hmm. may leen jàmm képp ci topp mm-hmm. ndax màggal Tuubaa gi daaw mm-hmm. ba mu ci joxe ndigal ñu bari jaaxle woon nañ waaye jàmm ci topp nit nag la la weesu nga jàng ci gënu ca ci essiw li nga essiw daa war a doon sama ginnaaw bi bi ñëw bi mu dellu si di gën a leeral sëñ bi sëñ bi bu tàmbali rek sëñ bi ne ko xuliñ nal mawtal si fi tafiroo na minhu fa innahu laaqikum tubaab bi lay waxaat ki mu àndal dafa teen koo gën a leeral suñu ne ko aynama takunu yudrikumul mawt wala kuntum fii burujin mushayyada ba bis rek mu xëy wax ne yàlla suñu borom mi mi ma mi fi wàccoon jàngo ji xamal na ma jëlee fi te dégg am na koo xam ne ku ñëpp xam na da koo dal mu assi fekk sëñ bi ci jàkk bi sëñ bi sëlmal ma ne ko maa ngi nii de wéeru ji waaye bu ma dee dama koy layoo sa borom sëñ bi xëy ci jàkk ji bis rek dem fekk ko këram ba mu ko jubee rek ma ne ko bu ma jege de ndax damaa tos ndax tos xam nga ne ku ku ku mas a jege rek kenn dootu ko nettali waaye sëñ bi daa ñëw ba tiim ko jël loxoom teg ci boppam daal ko tàggale ba mu fa sax noonu nag moom foofu la àggoon mm-hmm. moo tax suñu kilifa gu baax ba Serigne Sonia bi daa wax ne dafa am ci magi magi Serigne Touba yi kooku masala ñu ne ko ah ñun magi taalibe yi di yamul jaxle ndax dañoo gis yéen ngeen fonk docteur loolu te ñu gis ne seen waaje ku ku bañoon loolu la mm-hmm. mooy Serigne bi mm-hmm. sëñ bi ne faa ah, moom de daa bokk ak moom ndax moom de bu ma saan jàkkaarloo bu wéree de ma ne ko ku mënta àgg foofu nag ñu doyloo ko tey ñaan ci barkeem te leen di ci docteur yi mm-hmm. waaye dañ ñoo la fay jiitu mm-hmm. barke suñ tubaab yëpp si ñi nga xam mm-hmm. ku ma sa wér di ci seen jëkkër dañ la yebal ci docteur bi kon loolu cër la bu leen suy borom jox fasalu ahli zikri in kuntum laa ta'lamuun moo fassiroon yi ñu bëri danañ ko firee ci anam yu bokkut waaye bari na ci ñoo xam ne wax nañ ne sàbbi ci biir kon yéen itam li ngeen jàpp ne moo ci muslim mooy yi ngeen wax yëpp di ay nattuwaay ndax euh, nit ñi tam léeg-léeg li ñuy wax tanaaxud da leen def tanaaxud mooy contradiction ndax nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di yooyu alxuraan def moo ba def bëgg gëm di yedd yi ndax koo xam ne bu sa bopp nettee boo demee si docteur mu digal la aspirin nga naan ko nit dem da ngaa war a wér boo si buro war a dem hôpital kon jàpp naa ñoom itam bu ñu xoolee ba gis ne lii moo ko mën a bu ñu la ko waxee dañ ko war a gëm ci ci nattuwaay te gëm naa ne itam te sekkari suñ borom yi ci biir ndax yàllaa ñu si wàcc ci waxoon na ko yonent Yàlla Moussa lu guddi lu wax njur dég siwaat kon daal ñu ngi soññewaat di rafetlu di sant waa communauté bi yëpp ñu ngi seq rawatina ñi nga xam ne ñoo ci bopp yi bàyyi mu kenn waaye bu ma ci tuddee sëñ Ousmane tudd ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi tudd ci sëriñ Cheikh bi ak yenn commission yu ko seq yëpp moo mën a yóbbaale mboolem ñu ci ne ñëpp di leen sant ñoom itam ci seen pësteef ak seen taxawaay ndax lii ñuy def lu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal moo leen ko xesee bu wàcc wax rek noppi la ñoo ci def daa xam ne def nañ ci taxawaay bu mu sëpp def ci pësteef ba ñu am ci ndam ginnaaw ñaaru sëriñ bi pêcheur boobu nag xam nañ ne boo man sax waaye Cheikh Mouhamadou tax ñu ngi koy defal xam ne pay gi ci loxo Sëriñ Tuubaa la ne loolu nag loolu la ñu dund moo tax soxlawuñ ko ko xam soxlawuñ lañ ci def nit ngi di ko xam waaye nag kañ ko seqal di sëñ bi xam na ko kon yàlla lañ ci gën a defal kattan ngeen leen ci defal ndimbal ngeen leen ci defal tawfeex ba ndam yi ñu ci amoon daaw ren ji ñoom ci du ko te dem naa ne itam yàlla eh, la ma waxoon rek Serigne Saliou Mbacke waxoon ne yaakaar ji te su yéen ko fii Touba kon nag ñu ngi rafetal njort te delloo delloowaat lépp suñu borom nag ñu nga xam ne moo borom kattan di borom sañ-sañ bi te mooy def muy dindi loolu lu mu def rek moo gën ci moom ci li mu wax ne asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fiihi kon nag ñu soññ bokk taalib yëpp bokk gis yëpp ñu jéem a gàttoon ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne santaane na ci lépp ñu bëgg xam ne dañoo nekk ci biir réew mi doy loo suñ tuwaay yaakaar ko xam ne mën naa tax suñ digg lépp dëkk suñu nawle te Cheikh Abdou Ahad Mbacké wax ne ku la yaakaar ku la kon ñun dëkkalu dëkk réew mi bokkuñ luñ gëm itam war nañ leen a siddi ndax àq dëkkandoo def for dañoo bokk réew kon it ñuy sàmmante loolu lépp loo xam ne ñëpp ko def ñoo koy àndandoo ndax euh, dañoo nekk ci biir réew mi nekk ci biir àdduna te mënuñoo beddi ko ndax suñu saa yi daana lépp loo xam ne day woon mi ngi beddi ko ci réew nañ ko daw lépp ndax ndax ñaan Touba mooy xolub Sénégal kon li nga mooy xolub Sénégal rek lépp lu ñuy def rek li war a gën a jëmbal benn réew mi la def xalaat yi yëpp nag suñ ci def dañ ko jëlee. kon ñu ñaan yàlla màggal yi ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm day ci tawfeex te suñu borom mu suñu ci jàngoro ji bañ a law ndax xam ngeen ne jàngoro ji li mu yóbbu ci bakkan bari na am na ñoo xam ne itam bu fekkente ne romb na leen jàll itam dana bàyyi ci ñoom jeexit li muy yàq ci koom-koomu adduna yi bari na ñëpp xam nañ ne eh, jamono yi métti na ci nit ñi te loolu lépp yokk na ci lu bari jamono ji métti woon mu ñëw dolliwaat ko loolu lépp nag kon lépp lu tax loolu gën a jeex ñëpp ci war a góorgóor def ci yëpp def ci posté mm-hmm. te dig leen ci yéen tam mm-hmm. te bañ cee jiw ak mm-hmm. loolu suñu borom lañ ko jagleel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بيد ربنا دار المصطفى صلى عليه